الحمد لله الذي جعل القرآن تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة للمؤمنين وجمع فيه أصول الدين وفروعه وأصلح به الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أكمل الخلق وسيد المرسلين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله العظيم القائل في محكم تنزيله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون mbokki ginnaaw bi ñu sant yàlla suñu boroom subhanahu wa taala moom mi ñu jagleel alquraanul karim leeral ci lépp lu ñu mën a soxla moom mi ñu jagleel alquranul karim mu nekk hudan di ak njub ñeel jullit ñi moom mi ñu jagleel alquranul karim mu nekk rahmatan lil muminin di yërmane ñeel way gëm yi alquranul karim boobu la borom bi subhanahu wa taala dajale lépp luy kislaayu diine ak lépp luy ay meññitam ci alquranul karim la yàlla def islaax ak jàppandal ci suñu dund ak suñu diine ci lépp lu ñu war a jaamoo suñu borom subhanahu wa taala ca la ko yàlla def ñii seede ne amul kenn kun war a jaamu ci dëgg ku dul moom subhanahu wa taala te war ñu ko bokkaale kenn di seede ne suñu sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi gën a gën a tedd ci ku yàlla sàkk di ki gën a rafet jikko ci ku yàlla mës a bind waaye di sangu képp ku yàlla mës a yónni yàlla na yàlla julli te selmal ci moom te barkeel ko moom ak njabootam ak saxaaba yi ak képp ku topp njubam ba ba keroog borom bi subhanahu wa taala di doon ni suufam si ñuy dénk suñu bopp mbokk yi leen dénk ragal yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi ñu koy dénk ci alquran ci ay bërëb yu fasantikoo di ñu dénk ñu ragal ko doon dëgg-dëgg jullit te bu ñu dellu si ci moom mukk lu dul lañ koo jébbal suñu jëmm yi mbokk yi suñu xutbay tey bi iznillahi taala ay taxaw seetlu la ci wenn ci saaru alquranul karim karim yi ñu koy wax suuratul xujuraat wàcc ca madinatul munawwar alxujuraat mooy dëkkuwaay yi nga xamante ni fa la saxaaba yi dëkkoon mu nekkoon ay pukus waaye seen dëkkuwaay boobu it nekkoon cohésion boo xamante ni almuhaajiruun yi ñoo ngi jóge woon Makka gàddaay bàyyi fa seen lépp fekk si waa ansaar waa Madina ñu dalal leen naka lañ nekkee woon seen dund googu ba mu jural leen ak jàmm ak dal ak lépp loo xamante ni ay ngëneel la saar wii di sootul xujuraat loolu lay jàngale ci waqfa bu njëkk bi taxaw seetlu bu njëkk bi yàlla suñu borom subhanahu wa taala mu ngi tijjee saar bi di ci jàngale al adabu ma allah teggin gi jaam bi war a am ci digganteem ak boroomam subhanahu wa taala mu ni yaa ayuha alladina amanu laa tuqaddimu bayna yadayi illahi wa rasulih wattaqu llah inna allaha samiun alim ey way gëm yi lépp lu ngeen di jëflante ci seen biir na ngeen ci jiital pas-pasu seen borom subhanahu wa taala kese lépp looy jëflante ak nit bul gis la nga koy defal bul gisit ka nga koy defal na nga gis yàllay kese ci mbir moomu noonu wa rasulihi te boo koy def it na nga ko def comme ni nga xamante ne noonu la ko yonente bi sallallahu alayhi wasallam jàngale kon tàmbali saar bi moom directement la jëm ci individu bi di ko defar ci xolam ci pas-pasam ci lu mu war a jëflanteeg ñu ko wër yàlla waxaat ni yaa ayuha alladina aamanu laa tarfacuu aswaatakum fawqa sawti nnabi wala tajharuu lahu bilqawli ka jahri bacdikum li bacdin an taxbata acmaalukum wa antum laa tashcuruun bu amee kenn ci yéen di diisoo ak moroomam ci xalaatu kese nga indi sa idée ma indi sama idée nee na bu kenn ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jël leen seeni idée yo ngeen teg ko ne te jël waxu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëfe ko ndax moom ay xalaatamu boppam yàlla da koo effacé yàlla jël li nga xamante ne moom la bëgg ñu koy doxee ak di ko meloo mu def ko ci moom moo tax mu ni su ngeen di wax rek ba dégg ni qaala rasul sallallahu alayhi wa sallam teg leen seeni xalaat ngeen jël xalaatu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ngeen jëfe muy jàngale ba tey ci kilifa ni nga ko war a warmaale sa kilifa warul wax mukk say kàddu di jëm ci kawam di jug ba egg ci daanaka mëdd ay ay kàddoom saxaaba yi biñ ko defee saar bi aaya bi wàcc dem nañ ba ñoom bu ñuy waxateeg yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi da leen di laaj lan nga wax maanaam da da cay baamu waat ngir nit ñuy wàccee seeni kaddu loolu muy jàngale tamit ci ni nga war a àddoo say kaddu ci ay kilifa waqafa bi ci topp mooy al aadaabu talaqi al axbaar xibaar yi egsi ci yow ana nag nga ko war a jàllale ban xibaar nga war a jàllale ak ban xibaar nga war a jàllale mun yaa ayuha alladina amanu in jaakum fasiqum bi naba'in fatabayyanu an tusibu qawman bi jahalatin fa tusbihu ala ma faaltum naadimin nee na saay buñ la toxalee ak xibaar mu egsi ci yow nga xool jëmmi xibaar bi xam ni kii de bu la rombee la muy defe ji mooy yàq nee na fatabayyanu na nga leerlu ci xibaar ba xool na mu gën a rafetee nag nga déggee ko noonu yow soo ko deful ñu jox la xibaar wala nga gis lenn rek dal li koy jàllale nee na bis bu leeree fa tusbihu ala ma faaltum naadimin da ngay mujjee rëccu te loolu dafay jur ak ñaawoo dèjà ndax jàllale nga lu ñaaw waaye dafay jur ak xeeb ak wàññeeku ci yow ndax yow mi ko wax da ngay doon mujj ku xeebu ko wàññeeku ci kanamu ñi nga xamante ni ñoom nga nekkal borom bi subhanahu wa taala di waxaat ak ñun ba tey ci suuratul xujuraat ci yan teggin moo war a dox ci suñu biir adabul adabul uxuwa bayna almuminin yàlla ni innama almuminuuna ixwatun jullit ñépp ay mbokk lañ la ca war nag mu ni mooy fa aslixu bayna axwaykum na ngeen fexe ba yéwénal rafetal seenub nekkin fa aslixu bayna axawaykum islaax googu mbokk yi nu mën a nekkee moo ni ci taqwallah ci ragal yàlla moo tax yàlla ni wattaqullah lépp luy jëflante ak sa morom nanga ca xool yàlla laallakum turhamun ndax yàlla suñu borom subhanahu wa taala mën ñoo yërëm yàlla ñu yàlla yërëm alwaqfatu rabia ñeenteelu taxaw seetlu ba tey ci suuratul xujuraat mooy adabul islaaxi fi xaali wuquuci xilaaf mooy saay bu juuyoo amee ndax mënul ñàkk wolof day wax bëñ ak làmmiñ ñoo ànd ñoo dëkk foofu léeg-léeg ñuy laale bu laale googu amee yàlla suñu borom duñu wax nan ngeen ko war a lijjantee mu ni wa in taifataani min al muminina iqtatalu bu fekkente ni ñaari jëmm dañoo jote wala ñaari kuréel jote wala ñaari état jote lala ca war yow jullit mooy fa aslixu na nga ca dox tànki jàmm tànki defar tànki rafetal baynahuma mu ni boo demee nag ca la ngay attewoo mooy ca la yàlla wax na nga ca attewoo mooy ci al adl ci maandu ak ci al qist ci yemale mu ni bu fekkente ni da nga ñëw xam fa dëgg féete nga dem ca ka ca des waar ak moom mu fettirlu na nga ànd ak nee nag ka nga xamante ni moo yor dëgg ga waaye ka xa ka juumoon bu demee ba dellusiwaat nee na fa aslixu baynahuma na nga dellusiwaat nag defaraat nga rabbat ñëwaat diggante boobu ngeen fàtte li nga xamante ni moo doxoon seen diggante aqulu ma sami'tum wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ñu ngi sant yàlla suñu borom subhanahu wa taala moom mi nga xamante ni jurul kenn te kenn juru ko du nawle ci kenn moom mi ñu digal ñuy rafetal ci suñu biir di ñu digal ñu topp ko topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci lépp lu ñu digal ndeem ay jullit lañ juróomeelu taxaw seetlu bi ci suuratul xujuraat borom bi subhanahu wa taala mi ngi wax ci wàllum société bi nag al aadabu al ijtimaai bayna al muslimin ana naka la ñu war a amee ak teggin ngir ñu am cohésion sociale mu ne yaa ayuha alladina amanu ay yéen way gëm yi laa yasxar qawmun min qawmin asa an yakunu xayran minhum nee na bu benn xeet ci yéen di xeet a suxriya mooy di reetaan reetaan goo xam te ne ñaawale nga ci jublu nee na bu kenn di xool sa moroom di ko xeet di ko xool xoolu ku wàññeeku ndaxte bu boobaa fa ngay nattee baaxul yàlla natteewul foofu ka ngay xeet amaana yaa ngi koy xeet ci rang social am te moom yàlla moo la def nga am xëy na def ko mu ñàkk bu ko xeebit ci askan bi mu bokk kii géer la kii géwël la kii tëgg la kii nàngam la déedéet yàlla natteewul foofu yàlla fa muy nattee doomu aadama fekk egg fa muy ci xol bi moo tax mu ni laa yasxar qawmun min qawmin ndax ka ngay xool di ko xeet asa an yakunu xayra minhum kooku mën na laa gën fuuf sax moo la ëpp cër ci yàlla mën na la ëpp cër ci yàlla mu génnee ci alqawm bi mu wax sebb ci jigéen ñi mu ne wala nisaaum min nisaain kon maanaam xeebaate googu yàllaa ngi joxañ ne ci jigéen ñi la ëppee sama jëkkër moo am lii sama doom mu ngi nii sama nangam moo ne am naa lii am naa lii mu ne bu kenn nattee foofu loolu ma la jox lépp ziinatul xayaati dunia la poñetu àdduna la mënoo dem ba yóbbaale ko fii nga koy bàyyi moo tax yàlla mu ni bu leen di xeebaate rawatina yéen jigéen ñi wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqaab ngir ngeen am cohésion sociale sa wayjur bi jëlal tur wu sell tuddee la ko Muhammad tuddee la Xaadim tuddee la Moustapha Al Hassan Al Hussein nee na nga jël tur yooyu noonu tuddee ko ay xës zës azu wëz f jël seen tur yépp nee na bi sa lismul fusuuqu baada al iman tuug tur goo xamante ni tur bu sell la woon xanaa kay da nga waroon fekk turu ceddo nga tuubal ko waaye tur bu sell nga jël ko soppi ko def ko beneen tur nee na bi sa lismul fusuuq baada al iman bul xooli kenn koo xamante ni ñu ngi ko tuddee tur bu sell nga bëgg koo xeet tuddee ko beneen tur jëmbóor yi ngir boo koy jëw mën koo woowee ce boobu tur ngir xeet ko ba tey yàlla mu ne loolu du jur cohésion sociale ci seen biir mu ni wa man lam yatub yàlla saay bu waxee yu mel nii di ci dànkaafu dañuy ubbil benn échappatoire mu ni ku ci tuubul nag ci yooyu nga xam ko pare tuuboo ca ah mu ne fa ulaayka humu daalimuun ñooñu mooy ñiy tooñ seen bopp ëllëg ñu mën nar a duma yàlla nañ ci yàlla musal yàlla ñëwaat ba tey di ñu dénkaat ci saar bi mu ne yaa ayuha alladina amanu jitanibu katiran min addan inna baada addanni ism wala tajassasu wala yaxtab baadukum baada ayuhibbu ahadukum an yaakula laxma axiihi mayitan fa karihtumuuh fa karihtumuuh wattaqu llah inna allaha tawwaabu rahim yàlla suñu borom di ñu dénkaat ba tey ci suñu nekkin mu ne bàyyi leen moytandiku leen lépp luy ñaaw njort ñaaw njort bokkul ak ñaw njort ñaw njort mooy nga am xel mu ñaw ba kenn du la yóbbu ci benn dérive du la juumloo ñaaw njort nag léeg-léeg dina baax waaye mu ne inna baada zann ism lu ci ëpp nag mën na nekk ay mën na jur ay bàkkaar mu ne bu leen ñaawante njort seen biir wala tajassasu bu leen luñ bëtante ay mbir ku nekk di bëgg a xam sikku sa moroom ngir bëgg koo jàlle mu ne loolu bokkul ci leen di jël cohésion sociale wala yaxtab baadukum baadan bàyyi leen jëwante bu kenn di jëw sa moroom jëw nag mooy nga xam ci diw mi loo xamante ni soo ko waxee ci teewaayam mu metti ko nga wax ko ci fu mu nekkul ci absence am da nga kaa jëw bi mu waxee loolu saxaaba yi dañ ko wax ni ko bu dee liñ koy wax jëwee nag dafa nekk ci moom comme masalan nga ne diw ak gàttaay bi doonte daa gàtt nag waaye neexu ko nee na boobu nag loolu mooy jëw bu fekkente ne nag la nga koo waxal nekkul ci moom nee na da nga kaa duural loolu leneen la mu ne kon bu kenn jëw sa moroom ndax jëw ko dafa mel ni ngay jël sa yàpp moroom fekk mu faatu nga koy seel di lekk yàlla mu ni fakkarit mu ni ngeen bañelee na ngeen ko bañ a di jëw seen moroom mu ñëw nag di jeexal ci saar bi ci suñu nekkin ci àdduna bi maanaam ku nekk lan nga war a jàppee sa moroom ci àdduna bi mu ni yaa ayyuha nnaas nit ñëpp la woo inna xalaqnaakum min dakarin wa unsa maa leen bind def ñi ay góor def ñi ay jigéen wa ja'alnaakum shu'uban wa qabaa'il ma def leen génération yi wuute génération bi bokkul ak génération bi génération bi bokkul ak bee génération wa qabaa'il def leen aussi ay ethnie yu wuute ñii ay tukulóor ñii séeréer ñii joolaa ñii anglais ñii allemand ñii ila axiri waaye def moo ko rek ci neen du hasard dama ko def li taarafu ngir ngeen xamante jëriñante mu ne nag ni ma leen defee noonu ngeen nekk lu wuute ci lay tànne ci ci gën ci yéen man may ki lay tànn man yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum ki gën ci yéen mooy ki nga xamante ne mooy ki ma gën a ragal yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xamante ne ñooy almuttaqin mbokk yi kon saar bi mi ngi tàmbalee ci bàkk ak di xamale yow naka nga war a mën a defaroo sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala yàlla jeexalee aaya boobu ne samiun alim maa ngi dégg nag aji xam laa képp ku nekk la ngay def mu ñëw ba ci nihaayatu suura bi ci jeexitalu saar suura bi mu ne inna allaha yaalamu gayba samawati wal ard man yàlla maa xam kumpay asamaan ak suuf wallahu basirum bima yaamaluun maa ngi ni jàkk nag ci lépp lu ngeen di jëf kon mbokk yi suñu nekkin ngir mu yéwén mooy kenn ku nekk day sédd yàlla ci la muy def te bu koy defit mu def ko te yàlla kese tax ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قوموا الى الصلاه يرحمكم الله